jàngeen jëf ci ànd bi ak télévision Future Média xibaaru marax yi ponk yi ca gën a fës Khalifa Sall lu yoon di àtte ci moom ci àjjuma ji lañu koy xam lum ca mën a doon rassure du mouvement bi nag daal na koy jiital ngemb ko mooy doon seenu candidat ci woteek 2019 fii beneen ponk ci biir xibaar yi ñaareelu pàcc bi tey la door muy nag jële gone yi ci mbedd mi bu njëkk ba nag lañ ci doon séentu yëpp amuñu ko ba tax na nag ñi nga xamante ne daal ñoom ñooy yëngu ci wàllu woowu ci seen euh, liggéey Tiwaawoon pëlit daañu fa yegg ndax kër yi nga xamante ni dañu ko faa tojoon ba nëgë ma ngay indi ay euh, jafe-jafe euh, loole nag lañ ci joxan baaraam mooy waa urbanisme ak nee ñu cadastre bu Pikine ñoom nag ñoo ñëw foofee fas seeni saax saaxe seen i suuf maire ba ma nga koy naqarlu mbokk yi ponk yaa ngi ni ci yaatal gi léegi léegi jàngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias niñ ko waxee ci euh, ponk yi xalifa Sall lu yoon namm ci moom lu muy àtte loole nag juma ji nag daañu ci xam dara waaye nag lu mu ca mën a doon euh, mouvement bi ñu duppee nag rassure ñoom ngemb nañu ko ndax nee ñu mooy seenub euh, candidat ci atum 2019 dinañ ci delsiwaat ndax sànq ñi ngi doon janook taskatu xabaar yi beneen ndaje tey yi tamit bokk na rek ci kuréel gi nga xamante ne nag moom moo njabete ñu fare ci ku politique gi te ne nag dañoo bëgg ay wote yu jaar yoon fii ci Sénégal ñoom it ni ki sànq ñi ngi doon janook taskatu euh, xabaar yi ñu daal di nag wax ci jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñu nemmeeku mi euh, ci wàllu wér-gu-yaram ñu gis ni boobu ba tey euh, ngi sekk waxtaan ak syndicat jàngalekat yi waaye ba nëg ni nag jafe-jafe yaa ngi des ndax déggoo ba tey amagul ba tax na nag ñi nga xamante ne daal ñoom ñooy syndicaliste yooyu ñu ci ëpp nag ñoom ci seen gis-gis nguurug Sénégal dafa war a fexe rek matale li nga xamante ne nii moom mooy xaati mi am na ci ay yoo xamante ne kon doon na ay jafe-jafe Ibou Diouf Jafara Ba ci leeral. syndicat yi rafetlu jéego yi nguuru Sénégal jël rek gannaaw li ñu duppee suivi régulier des acquis maanaam ñu mën a saytu bu baax a baax accord yi ñu jot signé. syndicat yi dañ koo signé woon nguur gi ne nguur gi danaa ko def danaa ko def danaa ko def ci bu app bi jotee bon app yooyu weesu na am na ci problème yaakaar naa loolu kon xam ne nguur gi dafa waroon yàgg lii waroon na ko njëkkee. tey jii dafa am ay évolution yu am solo ak implication premier ministre évolution yooyu mënuñu ko négliger parce que ci évolution yi man gis naa ne am na volonté feeñ na ci volonté pour régler problème yi. syndicat yi doon daanaka ay partenaire nguur gi bu fekkente ne rek dañu am yéene am ay solution ñoom ñépp gis nañ ne dossier yi bu ci ku si nekk defee li nga war a def rek dinañ mën a am li ñu duppee entente. syndicat yi wax dëgg yàlla mën na jàpp ne duñu duñu ay nit ñu nga xam ne dañu braqué wala ñu jàpp ne eh, dañu bëgg a indi fitna jàppuma loolu dañu dañu honnête syndicats yi dañu yàgg a sonn parce que nag li leen dal aussi bu ñu ko jàngatee dinañ comprendre seeni i position ñoo xam si dañ ko wax ay ay ay syndicaliste ay syndicat ay jàngalekat ça veut dire que ñoo xam ni si am nañu maqaama loo leen jox ñu ta ñu set ko la set setal ko def ko parce que loolu seen liggéey jàngale def xam-xam di analyser donc loolu boo xam boo amee ñu mel noonu yaakaar naa problème warul bër posé ba egg fu mu doy nguuru Sénégal ak organisation syndicale yi ñoom ñëpp ku ci nekk am na pàcc boo war a dox ci li nga xam ne rek mooy utub solution ndax tey gis nañ ne jamono ji bëri na ay syndicats yu ñaxtuus ci boor bu nekk. waxtaan boobu nag dafa am nu mu war a tëddee waxtaan bi mënul nekk ne dañoo war a am lépp léegi mënul nekk ne aussi duñu am dara diggante boobu. war nañ fi mën a toog waxtaan. nga am na xam si bu ñu demee ba mu sës ba ñu am ay problème buñ def buñ dañuy def ñun benn jéego nguur gi def benn jéego ñu defaat beneen ñu tas ci digg bi donc daal di juboo yaakaar naa loolu loolu mooy li am solo parce que ñëpp la réew mi soxal. organisation syndicale yi di rafetlu rek li nga xam ne moom la ñu duppee rencontre hebdomadaire mu aju ci suivi régulier ci ak yi ñu jot a am seen question avancement ak indemnité de salaire yi nga xam ne rek bokk na. ci li gën a ñor yi les syndicats. mboolem nag euh, ñuy euh, liggéey di yëngu ci wàllu ndox euh, ñu ngay yëglu ndax ay jafe yu tar ñi ngi koy dund ñoom liggéeykat yooye muy nag di anam yi ñuy liggéey waaye tamit jëwriñ yi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu ndox mi di Mansour Faye ña ngay ñaawlu yorin wa Yéli Coulibaly moom mooy secrétaire général bi ëmb liggéeykat yooyu di yëngu ci wàllu ko ndox ñu teewlu ko ci micro Mohamed ci micro Mohamed Sow sunu teewaayu Touba tey dañu jaaxle ñu tiit ñu am na xar ñu daw ñëw laxu ci xarit bi di waxtaan ak moom ñu waxtaan ak moom dañuy privatiser hydraulique mais ñun yëguñu dara dañ xëy rek ñu ne privé yi egsi nañu Mansour Faye bind nañ ko juróom-ñetti bataaxal mais tontuwul le premier ministre Boun Abdallah Dionne bind nañ ko moom moom tam tontuwul ñu jaaxle loolu moo indi sunu ñëw Touba tey ñu ñëw waxtaan ak xalif bi dënk ko sunu bopp jox ko këyit ñu yor yëpp comme ça moom xool naka lay def ak nguur gi loolu moo ñu indi Touba tey fu mu toll sunu jafe-jafe bëri na budget hydraulique nekk na cent cent plus de cent cent milliards hydraulique boo ñëwee tey da ngay yërëm ña fay liggéey comme ay taalibe il travaille en haillons tenue yi ñu doon sol dàll yeeg yëpp Mansour Faye def na ko xaalis def ci gafakaam amuñu bulletin de salaire amuñu ko amuñu indemnité de déplacement amuñu habillement amuñu prime de risque amuñu heure supplémentaire amuñu prime de logement absence totale de dialogue amul concertation amul dara boo ko bindee du tontu Mansour Faye xamul liñ ko dénk ñun ndox lañ yor loo est sacré Mansour Faye xamul li ko dénk wax ji nañ ko wax te dee mooy goro président la moo tax ñu jox ko mais Mansour Faye ne pas diriger sa ministère nañ ko wax te dee ay ingénieur yu ko ëpp capacité ngi ñi jàng Canada ñi jàng polytechnique te joxuñu leen ko nañ wax te dëgg ci grève lañ jëm de forage bu paat ñu taxaw di ko xool loolu ñu indi ci xalif bi te dinañ ci waxtaan ak moom. Euh, ca Daaru Cubb euh, nekk ca commune bu waa euh, Jaxaay ak Daaru Karim nekk ca Rufisque Est foofe nag askan wa ñoom wàccoon nañu ca mbedd yi rek takkaay morso yu xonk di naqarlu nag ci jafe-jafe yi nga xamante ne nii ñoo ngi koy dund bokk na nag ci ñàkkum ndox mu sell courant naka noonu ba ci ay tali ñu ne amuñu ko Ousseynou Thiam Bira Diagne nekk ci lii di commune bu jaxaay daaru ci bu nag la fa manqué bëri na lool ci seen janook taskatu xabaar yi nag askan wa di joxoñ baaraam jafe-jafe yi nga xam ne nii moom la ñu jànkoonteel. fii nii daaru ci bu am na manqué na ay infrastructure yoo xamante ne pour jeunesse bi la quoi ku lu si mel ni comme foyer des jeunes bi parce que le maire en personne moom moo nu promettre foyer des jeunes xam nga. dina ko dig te mosuñoo yóbbu ba si site bi ñu xamuñu soxla nañu collège parce depuis que depuis que maire bi existé fii ba léegi am na ay lotissement yoo xam ñu ngi ko def ay plus de hectares yu bëri ñu ko def si daaru cubu di jël eh, eh, daaru amu si benn bénéficier amul lu mu si bénéficié wu suuf si da nga koy jël di ko jox ñeneen ñoo xam dëkkuñu si dëkk bi nan ñu si jàppal dagal nu si collège beneen problème insécurité xam nga problème insécurité mooy tey lu ko dalee table daaru nga dugg mooy fu ñuy duggee buntu dëkk bi ba fu ngay génnee buntu dëkk bi quatre lampes moo fiy tax kan lamp yëpp buntu kër Oustaz Alioune Sall lay tax kon loolu am na lu muy nuróol ci politique. mbat bi tamit doon benn fële ca daaru Karim Guy Murit ci Tingeej foofu nag askan wi amuñu ndox rawatina lii di courant. ñun li ñuy dund dañuy yaakaaroon na sa jeex na ci àdduna mooy vingt cinq kilomètres di Dakar Rufisque vingt cinq kilomètres de Dakar Rufisque ñu mën a dëkk fii amuñu ndox amuñu courant mais loolu vraiment man yaakaar naa amatul ci àdduna. démarche bu ñu deful amul façon bu ne def nañ ko dem nañ ci autorité yi dem nañ ci maire yi wax nañoo ñëpp ministre bi bi mu fi ñëwee wane nañ suñ bopp xamal la leen ne amuñu ndox mais ba léegi amaguñ satisfaction kon ñun vraiment président Macky Sall waxoon na ne PUDC li tax mu def ko ñi nga xamante ne dañoo nekk ci àll bi nga xamante ne tey ñoom ñëpp am nañu ndox quatre-vingt-deux kilomètres ci àll bi cent et quelque boo demee am nañ ay ndox bu ku ci ubbi robinet robinet bi sotti ñu am courant ñun ñu mën a dëkk vingt-cinq kilomètres de Dakar mënuñu am courant mënuñu am ndox mais loolu kenn mosu ko gis mënul nekk. mu doon askan yoo xam ni nag dañuy joxañ baaraamu tuuma lii di maire yi nga xam ni ñoom leen jiite ñoom nag jàpp nañ ne yooyu maire amuñu benn saafara ci seen i jafe lu ni mel nag moom moo tax ñu bëgg nag nguur gi wut ay saafara ci seen jafe-jafe yooyu nga xam ne nii moom la ñu jànkoonteel Eh, Tiwaawoon Pël gannaaw nag kër yi ñu fa tojoon eh, ci weeru avril bi eh, weesu ba nëgëni nag seeni borom ña ngay ñaxtu maire ba it nee na nag nañu doxalee kon ca commune boobe dëppawul ak yoon ay kuréel yu bokk ci urbanisme ba ci nag cadastre bu Pikine ñoom nag la ñu ca joxañ baaraamu tuuma ndax nee ñu ñooñee ñoo ñëw nag ca commune boobee lëkkaloo ak kuréel gi nga xamante ni moom mooy saytu lépp lu jëm ci nu suuf si ñoo leen ca dooleel Papis Diop moom mooy maire yàgg ñu teewlu ko ci micro Ousseynou Thiam. Euh, jamono yi passé def nañ fi li ñuy woowee délimitation département de Rufisque département de Pikine ñu délimité Malika délimité Tivaouane Peulh Niaga mu leer askan bi agence nationale aménagement territoire joxe ay coordonnées mu leer ñëpp waaye nag doxalin bi ñu rafetluwul mooy woy ba léegi mais nag wax dëgg neex yàlla jël nañ taxawaay boo xamante ne si doxalin même bu ñu ko rafetluwul kenn doot ñu noot léegi. waa xam nga litige même bu amee fii dafa am maire litige bu amee da waxtaan ak maire bi maire bi mooy waxtaan ak askan bi mais loolu amu fi. Hmm. dañuy ñëw jaay ñu doole def ni leen neex loolu moo tax ñu taxaw taxawaay bi alhamdulilah taxawaay bi tey jur na jàmm te am na yaakaar ne que li fi xew nii tey. c'est la première fois depuis que premier ministre jël décision DSCOS di fi ñëwaat waaye jàpp naa ne que duñ fi ñëwaat ci condition yu mel nii. liggéey bi jëm nag ci jëlee gone yi ci mbedd mi tàmbali nañu ko muy ñaareelu pàcc bi euh, bu amoon nag daaw def na nu taxaw seetlu euh, ca boobee liggéey ñu ne nag lu baree bari euh, des na ndax ñi nga xamante ni ñoo ca yëngu dañu leen dooleelul lool moo tax tey jii nag ñuy sàkku rek ci nguur gi mu gën a nag taxaw ci liggéey bi ndax am na lu bari loo xamante ne war nañ ko defaat ci wàllu woowee Mame Birame Diouf lañ ci ànd. àndal. daanaka léegi mat kon ñaari at ba président Macky Sall jëlee ndogal ngir ñu jëlee kon xale yi nga xam ni dañuy taxawaalu ci mbedd mi bokk na ci sax kon xale yi nga xam ne ay taalibe lañu boobu ak léegi jël ndogal li nekkoon sax ci weeru juin atum 2016 waa ji moom gis ne mbiri daal liggéey bi lu bari des na ci. xale yi moom toujours ñu ngi ci mbedd mi waaw. wax nañ ba sonn waxoon nañ ne euh, dañ leen jële fii ci mbedd mi mais ñu dem ñu naa sëriñ yi jàngale xaw ma lan xaw fu ñu jóge indi xale yi ci biir dëkk bi waaw xale yi ci oto yi la ñuy dugg fu nekk la jaar mu ne ñoo xamee ne duñ taalibe te guddeeg bëccëg ah, ñu ngi fi te kenn mënu ci ñoom dara. effectivement on a constaté que. talibe yi wàññeeku nañu bu baax. Euh, dans des carrefours et les feux. ak yeneen xale yi nga xam te duñ taalibe. waaw waaw waaw waaw man euh, j'ai une fois benn xale bu doon traversé tali ñëw mbëkk sama oto bi mais bu ma ko yóbbuwee hôpital ñu xool amuloon dara mais on est allé chez lui mais c'était pas un talibé. bu ñu demee ba këram moom yaayam ak yeneen frère am yëpp dañuy dem euh, si mbedd yi on dirait des talibés mais c'est pas des talibés. loppi junne ak juróomi téeméer ci ay xale nag kon jotañ lañ jëlee ci mbedd mi doon ay kàddu yoo xam ni kon jëwriñ gi yor mbirum protection de l'enfance xamle na ko yokkut sax ne ñaareelu phase bi dinañ ko door ci àllarba bi waaye geneen politique gu gën a baax moom la ñuy bëgg. sécurité ñu war ko yokk ah ramasse bi ñu bàyyi sax dañ ko war di def. maa ngi ñaan Macky Sall lu ci mën. ah na def ngir yàlla. fekke ñu ngi jàng nga yóbbale ba nga xam àgg na nga dem nga jël si ko bu àggee ci kër gi nga yar ko foofu mu téye nga téye ko foofu. gën a ànd ci liggéey bi ci mboolem bànqaas yi nga xam ni kon dinañ ci dugal seen loxo waaye it joxe ay jumtukaay ki matuwaay yoo xam ne ni dina mat sëkk bokk na ci li ñuy jàpp ni dina tax xale yi jëleen ci mbedd mi doon lu yomb. waxoon nañ ko sànq ci ndoxteelu euh, xibaar yi xalifa Sall nag euh, lu yoon di ci moom àjjuma la ñu koy euh, xam ak lu mën doon mouvement bi ñu duppee nag rassure moom jiital na ko ngemb ko def ko muy candidat am ci atum 2019 sànq nag ñi ngi doon janook taskatu xibaar yi Faty Dieng rassure mouvement politique bu tànn Khalifa Sall Youssou Mbow ak ñoñam ne amuñu ci sikki sàkka moom xalifa Sall lañu ñu mu nekk seen candidat ci jongante palub njiitu réew. ñun depuis 2017 dañu jàpp ne Khalifa Ababacar Sall mooy suñu candidat amul beneen xalaat bu ñu am lu dul xalifa Ababacar Sall mooy suñu candidat dafa fekk ni tey li nga xam ne ni que dañ ko jaay doole. intentel ko procès boo xam ni sénégalais yëpp askan bi yëpp mais surtout àdduna bi yëpp xam nañ ni procès bi du procès du lu dul nekkul leneen lu dul procès politique dañu jàpp ne que su procès boobu jàllee ba pare ba poussière bi yëpp calmé wu magistrat yi wax yoon te uniquement yoon xalifa Ababacar Sall la ñuy àndal dugg ci biir Sénégal évidemment convaincre sénégalais yi te Khalifa doy na leen déjà ñu xool nan lañ koy yóbbee à la magistrature suprême mouvement politique bi wàllum citoyenneté ñu ne lu jëm ci politique bu bees doxalin bu bees loolee la ñu fas yéenee taxawal. ñu jàpp ni que politique baax na daara bonu ci baax na te dañu jàpp ne ko aussi askan bi ak ku mu mënti doon da nga war a ñëw politique mais politique rek. di xaar ba élection nga soog a jóg loolu warul tax nit yëngatu ñu jàpp ni nag homme politique war na mën a yëngatu même en door di structure même en dehors des élections loolu moo tax ñu jël la le mot citoyenneté yokk ko ci suñu mouvement muy la dimension citoyenne. leneen itam lu jëm ci politique ak tolluwaayam waxtaane nañ ko fa bokk na ci parrainage bi nga xam ne dañ ko ñaawlu. parrainage bi dafa méngawul ak constitution bu Sénégal parce que constitution du Sénégal. dafa may parti politique ay sañ-sañ ne leen yenn parti politique yi ak yenn coalition des parti politiques yi am ngeen sañ-sañ dem ci askan wi laaj seen baat ñu ne waa wante parrainage amoon na fi 2012 dama ne parrainage suñ koy tënk ci ay candidature unique ay candidature indépendante sax nopp mën na ko dégg xel mën na ko nangu. le rassemblement pour la solidarité et l'unité dans la république ne noppi nañ ngir ànd ak xalifa Sall ci xeex bi moom xalifa Sall ñu tëj ko kaso lu jaajëfal ko euh, Faty Dieng lu tollu ci euh, junni ak juróom-ñeent fukk ak euh, juróom-ñaar ci soldat fi ne nii nag bokk nañu dëgg ci armée bu Sénégal gannaaw nag ba ñu leen tàggatee lu toll ci ñeenti weer ca douzième bataillon d'instruction bu Bango ñooñu nag fi mu ne ñoom ñooy contingent bu njëkk ci atum 2018 raay réew mi nag wan nañu leen ko loolee nag ci rek bi ñu leen di kon màggal soldat yooyu nga xamante ni ña ngi ko doon defee fa naan camp des Momar Gari bu Dakar euh, Bango ñu euh, teewlu commandant Mouhamadou Abdoulaye Sylla euh, bu 12e bataillon d'instruction ci micro seeni Diop. li mu tekki mooy ni bu njëkk bi mooy ni ñoom ci seen bopp lii ñu leen defal tey mooy wone ni ñoom tey jii dañoo taxaw waat daal ne waa réew mi ñoom pare nañu tey pour liggéey lépp lu nga xam ni moom lañ leen xaaree ci waaru karange ndax dañoo jàpp ni li nga xam ne bi mooy tax armée dëgër mooy yar ak teggin ñu koy woowee discipline de manière générale donc loolu mooy première partie formation bi mu wóor ñu ni kii nga xamante ni bii tey jii nangu nañu ci ñun la bokk am na yar ak teggin gi ñuy xaar ci li ñu nit ñi di xoolee ndax soldaar buñ koy xool dañu ko war a dañoo war a gis ci moom jikko yu sell yu rafet yoo xamante ni bii royukaay la war a doon pour li des ci euh, doomi réew mi ñaareelu wàllu formation bi nag moom mën nañ ko wéer ci lépp loo xamante ni bii mooy man-man ngoo xam ni bii da nga koy man ci utiliser matériel u armée yi fetal yeeg yeneen matériel yëpp yi nga xamante ni bii mooy tax suñu mission ñu mën ko def normalement vendredi saint ñu ngi koy waajal àjjuma jii nag lay doon yemook fanweeri fan ci weeru avril euh, ku ne nag vendredi saint xel dem ci ngalax ak yemuy àndal dugub euh, buy ba ci gerte gi dara yombul nag seetlu ga ca marché ba euh, commerçant ya nag ñoom ci seen jëmi bopp sax xam nañ ni njëg ya dafa yokk Cheikh Diop. ñoo ngi fii ci marché bu Castor ñaari fan sënkëm des ci li nga xam ne moom moo di vendredi saint di ab bés boo xamante ni itam dañ ko jagleel defarub ngalax yi commerçant bile nag di àddune gisagul boppam ci fête bile ak itam seeraayu yenn ci ay produits yi. ay instant moom événement bi la xaw ma lan la waaye prix yi xaw na yéeg. ndax dugub bi gënoon na wàññeeku suukar ji gënoon na wàññeeku essence sax suukar bi dafa xaw a manqué ci marché Castors bi ndax xam naa fête bi mooy loolu moom. Serigne Diome di ab am ci lu tolloog fanweeri at di ñu xamal ana lan moo waral lu ni mel. dugub bi Issa wax dëgg yàlla prix bi gënoon na war a xéwale daaw lu ñu doon jaayee deux cent cinquante mais ren ñu ngi jaayee trois cent cinquante doon na dox bu baax suñ côté yi euh, supermarché yi ñëw ba marché bi tamit ñëw toog fii. bu ñëwee ñu bari dañuy noroon bëgg ñëw si ñun jënd si mais si supermarché la ñu yem jënd si. góor gi le ute ak yeneen i jaaykat yi nga xam ne jot nañoo wecconte ak ñoom kile di jaaykatu buy ak itam a tigadege di xam ne prix yi jot si yomb na. buy moom li mu doon jar rek daanaka la jar mais am dafa am ñaari façon buy am na buy Casamance am na buy Mali bu dee bu Mali bi 600 la bu dee bu Casamance bi 700. six cent sept cent cinquante daal mooy prix bi man tey jii rek jaay naa prix de trente kilos bi ak tega tega jaay naa benn silo cinq kilos vraiment ngi takkaat ni ñun dañu ngi jënd moom wax dëgg yàlla ñi jaay tega tega buy kay dañ jëgi suñ bopp moom jaaykat yi nga xam ne daje nañ ak ñoom ci marché bu Castor nag di woo nguur bu Sénégal mu wàññi yenn ci ay denrées alimentaire yoo xamante ni ñu ngi koy jëfandikoo ci dëkk bi ndax li ñu xam ne ah, moom moo di njëg yii dafa cher bu baax a baax Euh, ñu dem ba Kaolack euh, ki nga xamante ne nag moom mooy euh, Serigne Mboup ak ñamu àndal ñoom nag la ñu nemmeeku ca diwaanu Kaolack mooy koom-koom ga daal des na ba tax na nag tey am na ab mouvement bu bees bu ñu daal di kon sos duppee ko nag Kaolack sama ndam mouvement boobee nag nee ñu la ko njëkk li ko tax a jug nag lu njëkk mooy fexe rek ba daal di fexe kon ba salte ba foofee ñu xeex ko ndax yàgg nañ di ni Kaolack dafa salte loolee nag ñu ko duppee la bëgg mu daal moo nag Serigne Mboup daal di taxaw moom moom mi nga xamante ni moom mooy njiital kon mouvement boobee ñu teewlu ko euh, ci micro Ibrahima Diame. ñoo nekk ay opérateur économique dëkk ci région bi te xam région bi taxaw bi mu taxaw ci wàllu développement Sénégal dañuy wax sax ne lu mas a am fii la amee. Kaolack mag ñi dañu xeex bu baax pour Sénégal am indépendance kon tey jaadu na Kaolack départ fii ñu xeex pour Sénégal am indépendance économique indépendance économique nag pour nga am ko mooy sa économie mu développé nga am fierté ne Kaolack laa bëgg lu tax sénégal yi di jóge fii dem ba États-Unis di fa di fa accoucher pour am passeport américain parce que foo ko tàllalee da nga am fierté kon loolu moom moo ko taxawal li ko taxawal leer na du politique. dugaluñ ci dara débat yi ngi def waxtaan yi ñuy wax bëgguñ ci daraay politique lan mooy wax bi mooy nan lañ fexe ba Kaolack développé nan lañ fexe ba nga xam ne nii danañ fier dëkk Kaolack nan lañ fexe ba nga xam ne nii xam suñu histoire ndax nit ku ne pour nga mën a fier sa bopp da ngay xam sa histoire. biñ waxtaanee li ëpp ci jàmbat yi ci nit ñi dañ ne Kaolack dañuy wax ne dafa salte man gisuma ko noonu man d'accorduma ci waaw d'accorduma ci. je pense que Kaolack salte woon na sax waaye salte yi mooy entrée yi te gis nañ ne nettoyé. Euh, ñu dellu wax ci bis bi ñu jagleeloon euh, théâtre euh, bëccëg ba démb la woon fii ci Sénégal nag xel daal di demoon rek ci Hamidou Dia mi nga xamante ne nii moom philosophe la woon nekkoon it bindkat critique d'art homme de lettres mun liggéey nag liggéey bu am solo ci jamono ndono li nga xamante ne moom la fi bàyyi tamit ñu jàpp ne nag lu fi sax lay doon Faty waxtu wu am solo ngir delloo njukkal ku liggéeyal réewam bëccëg gi àdduna warngal këpp jagleel théâtre ñu yëngatu ci wàllum aada ak cosaan di fàttaliku ndem si yàlla Hamidou Dia. dafa nekk bindkat bi nga xam ni euh, genre yu ñuy bind yëpp daf ci am xam-xam. liggéey na ci euh, littérature li nga xam ne liggéey bu am solo la mu nekkoon conseil président président xamoon ni aussi yorul woon conseil bu classique rek def ko rek conseil dafa xamoon ni dafa am conseil bi bu nekk créateur mu bàyyi ko ay liberté am ak ay liberté mais aussi sans que mu nekk anarchie mu mën a waxtaan ak moom ci yu bari di ko wax nag. nekk trait d'union entre écrivain yi ak moom. professeur Hamidou Dia doonoon jàngalekat philosophe xam-xamam yaatu woon lool. mu yéene woon ko ñëpp jàppe woon boppam doomu Afrique. boo waxee mu ne man balaa may mon rêve c'est que l'Afrique benn Afrique yëpp nekk ñëpp am benn passeport. même passeport c'est pour cela muy liggéey souvent ci charte du Mandé et chaque fois que ñu am conférence sur le plan international dafay dem toujours pour défendre les thèses de l'unité africaine. ndono lim fi bàyyi du mësa naax saay professeur Hamidou Dia yewe noonu lool ci ab xam-xamam. daan liggéey ak réew yu bari bokk na ca Palestine ak Cameroun. di présent pour dire que l'association des écrivains. ni ko président Paul Biya waxee kuréel gi lëkkale bindkat yu Sénégal ak dendoob Afrique bi yëpp dañoo dugal seen loxo ci xeex gi Cameroun di xeex ñi di Boko Haram di indi fitna ci réew mi professeur Amidou ja am ci taxawaay bu rafet réflexion yi itam bu am solo. Devant les difficultés qu'il connaît concernant les discussions les difficultés dans euh, ba ñuy euh, amal xew-xew bi di yëkkati benn raaya euh, dippee ko ndem si yàlla Yasser Arafat. pour la liberté et la paix. ndaje mi ñu jeexale ko ab pièce de théâtre doon ci waxtaan li xew ci jamono waxtu wile. tàggat yaram Sénégal Bosnie euh, jongante xarito boobee démb la woon ca Havre nag la ñu ko daal di euh, joué euh, ca France mu soxal nag waajal mondial 2018 bi sélectionneur bi di Aliou Cissé nag yëkkati ay kàddu gannaaw jongante boobee ak bu njëkk bi weesu ci gis-gisam nag moom la mu waroon def def na ko ndax jour bu ci ne nat na la ba xam na nga toll ñu teewlu Aliou Cissé ci micro Mamadou Ndiaye Mor Xarma Euh, le bilan il est il est plutôt positif dans la mesure. man li ma jàng jàngat ci ñaari match yi nga xamante ni Sénégal amal na ko moo di moo di euh, équipe bi euh, ci man dama koy tirer bilan bu positif ndaxte boo xoolee trente jours la woon à part ñi blessé joué loon naa ñëpp ñëpp ñu nga xamante ni ci ñaari match yi nga xamante ni Sénégal amal na ko joueurs yi participé nañ ci li ma ci gën a seetloo rek leneen li nga xamante ni moo ci gën am solo mooy système bu bees bi mu indi waxoon naa que ni aw ma temps ci jamono éliminatoire Coupe d'Afrique bi. pour def euh, instaurer système bi ci match amicaux yi loolu lay jëriñ pour teg li nga xamante ne mooy système bu bees donte joueurs yi des na tuuti ñu comprendre ko mais dina ñëw dina ñëw ñoom ñëpp ay euh, footballeur la dinañ xam bu baax euh, nan la ñuy def en tout cas dafay jafe trop parfois ñuy jouer ak ay équipe yu mel ne Bosnie ndaxte dañuy jouer ñoom bloc bas maanaam dañuy wàcc suuf te bu ñu wàccee suuf dañuy am jafe-jafe ngir remonter ko waaye li mu ci mën a jàpp mooy a tiré ci ñaari match yi nga regarder. Aliou Cissé di tàggat sunu gaynde yi mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen jaajëfal leen bu baax a baax yéen ñi fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi bu ma sotti Cheikh Tidiane Diawo dina fi teew ci kanam tuuti ngir faram-fàcceel leen xibaar yi ci nasaraan jaay.